bisimila daleen ak jàmm ci seen bi ngeen taamul seen bopp yéenekaay yu bari danoo xëy tey mel ni ñu naan ñu ku doon laaj ca faali a ngi ku doon laaj fu Ousmane Sonko ne ak ci lum ne vox populi ne kaay leen ma wax leen ko Sonko dey sori na lool déggan ko doon ragalal ak jafe-jafe yam nekkee woon ci wàllu wér yaram ndax ci yéenekaay bi Guy Marius Sagna ak Habib Sy ña ko seeti démba ña ngay nettali nanu fekkee Ousmane Sonko géye njëkk a wax ne Sonko musuma koo gis mu nekkee nii ci forme wér péng la def lépp lu nit di soxla it gii nee na Sonko ak moom wér gu yaramam ngi koy jotaat ndànk-ndànk Guy Marius Sagna ne la ko waral mooy génn na ci grève de la faim ba mu nekkoon ndax yoo yele de la faim dafa am lum ca doon wut telem ca doon yootu yëpp daanaka jot na ko ba mu ci forme Habib ne Sonko ngay sport ma ngay lekk bu baax te itam nee na lam doon yootu ci grève de la faim yam doon def juróom-ñeen fukk ak juróom ca téeméer ba jot na ko Cheikh Tidiane Dieye ne man de li ma ci gën a neex waxuma laak forme gi mu nekkeek wér gu yaram gi mu jotaat waaye xelam mi ni mu gënee ñaw Cheikh Tidiane Dieye xolam ci point actu it Guy Marius Sagna ak Habib Sy ña ngay jotale yóbbante Ousmane Sonko gën jëlee ca Cap Manuel démb ci yéene kaay bi Guy Marius ne Sonko dey tey la gën a gëm ne mooy doon juróomeelu président bu Sénégal président Pastef ga woon Guy Marius Sagna nee na la mën a gën a kaf tey la mën a gën a ree te itam nim duutee Macky Sall da ca bég lool moom Sonko Guy ne ma ngay espoir ma ngay jàng alxuraan waaye xelam mi yépp naka lay def ba réew mi génn ci jafe-jafe yim ne moo ca loola nag ngir mu am faaw 2024 mu dugg palais mu sàkku ci gaay gaayam yi ñu bañ a tontu képp ku leen ko bos nee ku leen di provoqué tànkam lu leen ko necca la ngeen ne yéen focus leen de la faim bi la ca yéene kaay ba mat nee na mu dagg Guy Marius Sagna ne ko waaye sonko la fiy fekk ndax sonko mais wér na pie taxaw fa séene defanteeg moom defante gi nag ak Macky ci tactique rek la ko nar a teg laas mel ni ku naan waaye peccum li wér bu neexee nday jaa jàpp ca wagg ya yéene kaay bi nee na sonko mi dalalaateeg mayeg audience ba ay farandoowam di ko seet si bu amee nanu ko santé état mi ko fiixal campagne wutum parrainage gi ñeel Basiru Fayde bu doon naa wax ne mi ngi ci état yor yor bi ne réew mi ci boppam la yëngal ak diaspora bi foo tourné gaa yaa ngay parrainé rang nag lañu ca boole ak mbégte mu rëy vox populi yittewoo candidature Basiru Jomaay Fay googa ne mbaadu liyey jàmmi Pastef Mamadou Lamine Diante coordonnateur lakos naan ko lum ci mën a doon daal candidature Jomaay moom amul benn ji jiixi jaaxa jante dolli ca ne jomaa ya ca kaso ba dëgg la waaye njiital Brésil Lula da Silva élection présidentielle ba nu mujjee tëgg ca réewam ba nu koy fal ma nga ca kaso ba Karim Wade gannaaw ba mu génnee kaso ba dem Doha ñibbiseem gi nag Le Témoin nee na faaw mu doon lu rëy ndax it présidentielle bi mu bëgg a bokk mooy élection bu njëkk ci PDS gannaaw alternance ci journal bi ay farandoom ne Doha ga mu ne day Karim a fay waaj lu rëy te doon toppee di Bibo Bourgi Pape Pouye Alioune Diassé Vieux Aïdara ak Mballo Thiam Macky ak Boun ñoom ñoo fës ci xët gu njëkku réew mi quotidien yéeni kaay bi ne Macky bàyyeegu leen ba tey de Boun Dionne ak ña fàqee woon ca langu Benno Bokk Yaakaar ba samp seen ndënd Macky ba tey mu nga xool nu mu leen jegaleeg Amadou Ba di candidat wu Benno Bokk Yaakaar bi ngir ñu jàppale candidature am ci élection présidentielle bi nu jëm Macky it ma ngay jàppale Amadou Ba ngir mu am ndaw ñi buñ sukkandikoo ci la tribune mi ne gannaaw tournée économique ba mu doon def tem saf lool campagne fi mu ni ab conseil ci ndaw ñi la koy waajalal waral yéene kaay bi ne la ko waral nag mooy xëyum ndaw ñi moom fi ni daa mel ni pataas bu tàng ci seeni loxo ñoom waa nguur gi jafe-jafe xëy yooya ndaw ñi am nag direct news ne ñàkkul moo yokk doole émigration clandestine journal biy laaj ndax loola crime lam suicide collectif maanaam ñépp àndi xaru may sa baabu économiste ci yéene kaay bi naan fi ngeen di xam lu mu moom fexe leen mbëkk mi dakk ndax mi ngi jeexal ndawi réew mi te ñooña réew mi da leen a soxla may sa baabu ne lii lam koy saf mooy jamonoy colonisation ba nuy jàpp ñi gën a wi di leen yëkkati may sa baabu ci yor yor bi mu ne mbëkk mi nag xam leen ne du mbiru kii mbaakee ñépp ci coupable maanaam ñépp ci taq ku ne sa loxo ngi ci Macky de daa mel ni loxo yi set la bëgg ñu yor alalu réew mi ndax l'observateur nee na déclaration de patrimoine Macky andi na ci ay coppite gën koo yaatal yéenekaay bi dinu xamal ña yëf ya soxal bees xamal ñuy coppite yi indi ci OFNAC min yokk doole yéenekaay bi nee na yokk nanu itam daan yi nar a képp ku lànk wone sa alal la tàñu alalu réew mi maanaam def sa déclaration de patrimoine Walf Quotidien booba jamono la ñuy xamal cumul cumul de fonction ca ARTP ne luwaa ba ca boppam lan fa salfaañee Habib Sy ci booba la yéenekaay di wax bu nekkee président li mu nar wax na itam li président Macky Sall naroon te mooy toog ci bopp nguur bi bañ fee jóg Macky mooma enquête nee ma ngay wéy di wax la na naqari ci nguuram gi yéenekaay bi ne li waral muy mer wor yi nu ko wor ak mbetteel yi mu am yépp Macky Sall dikk na ci Macky mooma demoon Kédougou Kaolack Kaffrine ak Fatick Le Soleil nee na ma ngay sàkku ci gouvernement am la mu fa digge yépp ñu Ziguinchor ñu des ci le soleil mi nu yëgal ne budget ministère de l'éducation teg nañu ci téeméeri milliards ak fanweer le quotidien ne léegi tey kay mu jege junni milliards moom budget bi waaye teewut jafe-jafe yi tey la gën a bari ci njàng meeg njàngale mi tax yéene kaay bi ne l'argent ne fait pas le joxoñ ñàkkum jàngalekat yeeg ñàkkum taabal yi teg ca ne budget ministère de l'éducation la muy rëy-rëy la gën a duuf ca nag wa ca dépense personnelle ma jambal jaañ bi dem ak ñun université bu milliards mooy tax ñu jagalaat ka vox populi naan ñu juróom-ñeenti téeméeri milliards ak juróom-ñeent mooy budget ministère de l'éducation Cheikh Oumar Anne ci yéene kaay bi naan koy xool ci budget bi naan loola yëpp teewul ñàkkum jàngalekat yi am fi boo waxee loola ba noppi waxal it ci fanweeri junni ak juróomi kalaas yi nu defar ak juróom-ñetti junni école yiñ sanc bi Macky Sall jiitee réew mi ak léegi bëgg Amadou Ba jiite réew mi moo tax ay farandoom farlu lool ci parrainage bi vox populi nañu maatam day jox na ko téeméer ak juróom-ñetti fukki junneeg benn yu teg juróom-ñetti téeméer ak juróom xelu Amadou Ba ci yéenekaay bi ne ko Matam moom titre foncier wu Macky Sall lay des di doon Amadou Ba ne man daal li ma Farba woon doy na ma ndax ni woon na ma 95 pour cent daa ko am maanaam téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yaak juróom te loola nee na leer na ko tey nañ ca woowale waxtu la l'observateur di indi ay leeral ci mbiri oustaz Oumar Sall yéenekaay bi ne amul benn plainte bu nu retiré fukk yeneen sax déposé noonu ko ci table juge bi libération ne nit ngi ci retour de parquet mandat de dépôt yóbbu ko kaso doyen des juges mi yor dossier ba alxamis ji lay déglu nit dof doomi France bi di Colin Fay moom àjjuma lañu ko teg loxo ca buntu cour suprême defeere kook yeneen juróomi nit yéene cabinet lañu leen di toppee mooy acte et manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique complot contre l'autorité de l'État booba ba tey nag yéene cabinet Colin lekkut naanut Jóob Tayif mi ne woon ci mandat de dépôt décembre ba tey bàyyi xóote ca lanu koy toppee ay awokaam nag ña ngay sàkku bàyyib négandiku yor yor bi dinu yëgal ne yargas yi ak ña ñu ko boole ndool jàpp daanu nekk ba fukki fan ñett weeru décembre ngir xam fu nuy féetee ndax ci lañ leen di àtte ci kanam chambre correctionnelle tribunal bu ndakaaru Kouthia moom ci mbir mi doxoon digganteem ak Amina Poté Les Échos nee na awokaam ba daf ko caa weddi ba set moom Kouthia mi doon weddi audio ya ñu génnee ne moo ko wax àtte ba nag journal bi nee na Amina Poté ca woon waaye Kouthia soxnaam sa woon la u ma ngay tuumaal France ne dafa teg ba moom gaynde yi daanu nañ waaye ay jàmbaar lañu woon ndax def nañu lañu man journal bi ne huitième de finale mondial U17 lan doon xëccoog France Mendy moom xëccootul ak kenn poste gardien de but buñ sukkandikoo ci stade yéeni kaay bi nee na jeexal na coow li lataa ñoo yegg ci kan bi fi ni moom leer na ni moo fi ne flanc gaynde yi stade nee Jacobs fi ne fi ne moom dafa ni faax kenn mënatu koo déjjati sunu làmb booba jamono dinu xamal li CNG dagg ci mbër yi doon jongante ci novembre bi muy Ama Baldé Modou Lô Siteu ak Lac 2 bi ne CNG teq na ci ñoom fukki million ci xaalisu CFA foofa la ñuy yem tey ñaanal leen kenn ak jàmm ba ëllëg incha allah